ndax la dugal na ma ay kuyu garaaw barke yàlla àndal maa mooma téye ak kot su ceer taalaay daf maa teg lu metti door na ma ay kuyu soor yow ku soor ah, maa ngi sant sama gars ñoom affaire penes ñaaw ñëpp ñu sonn seen làmb maa leen di sant xam ne beneen yoon si kàttanu yàlla bu ñëwee yàlla nañu yàlla may ndam jaajëf la baa ma toog ci kaw maa jël victoire bi waaw waaw cey li ci sonal sama ñaari waajur di gërëm waa Pambal bi la wala dañoo sonn ci man ñaari kaar lañ jël ñaari kaar jógee Pambal ñëw ba fii tey rek may duma daanu tey rek pour waaye waa Aigri ba Alboura lan mooy lan mooy yàggal combat bi ñaan bëri ngeen ba métan bëre waat boobi daa am doole ñuy ñaan ay xale ngeen doole la dama kaa song gisuma dara waaw man tamit dama liggéey boo nee dana lu ne jàpp na sa wër ma génn si door na ma kuyu dal mais ko su ceer maa ngi koy gërëm di ko sant billaay day taw rek na yàlla boo babal xool ñu ngi nele barke ma leen di gërëm di leen sant di gërëm ñu nekk ma daanu dee rek mais du ma daanu jërëjëf gërëm gaa yëpp bàyyiwuma kenn waa Pambal bu Pambal bu ñu gërëm bu waaw bu winte combat bi bu baax monsieur le maire bu Pambal moo may ay kar billaa wala tala dañuy jàpp si combat bi monsieur le billaa Lazare Lamane Thiaw jàpp si combat bu baax ko su cer maa ngi koy eh, kontaan nañ jërëjëf ko su cer daa soxor mooy kii mooy caatu Pambal ndeysaan mooy caatu Pambal moom mooy caatu waaw waaw kii maag ba maag turandoom ñoo takkoon bu mag waaw xam naa ko bu baax ndeysaan sëfër sa taak la woon mooy Pambal champion bu mag waaw champion bu mag waaw. xaaral combat bi jàll. xaaral combat bi jàll. turandoom champion bu mag ba. turandoom. moo bëre woon Pape Kane. waaw. moo bëre woon ak Mbaye Gueye. ndeysaan. moo bëre woon bu laal ndeysaan. moom moo war a dajeeg asamaay. waaw. ndeysaan waaw nga ni booy pambaal mu mag ma waaw moo dajee woon ak Pape Kane yàlla na yàlla yërëm leen le prince des arènes amiin waay xam nga lambi démb waaw moo jur lii waaw xam nga dafa laaj ñu waxtaan ci lambi démb waaw ndax Bantamba TV mais mais lambi démb dafa am solo xam nga Bécaye moom moo waral tey xam nga Bécaye dafay lambi démb waaw Bécaye ko jërë waxtaane la ndeysaan Bécaye Mbaye waaw dafa xam lambi démb jëriñoo ne maa lobe Samba dama ne la lamb bi démb dañ koy dañ ko war a wax dafa mat a waxtaanee xale yi ñu xam ko waaw dëgg la parce que loolu moo war a ma toog yow mais bu njëkk li amul woon non non sa teggin waaw yoo xamul da nga woo ma ndeysaan yow yaa ma woo waaw yaa ma wàccee dëgg la nañ waxtaan ci lambi démb waaw bilaay dëgg la ndax lambi démb dafa civilisé woon mais ma waral tey waaw lambi démb amul woon bandi bandilu làmb démb amul woon amul woon ñàkk kersa. amul woon lu ñaaw. ñàkk làmb démb. amul woon yii yëpp xool sañ Modou Niang mi tey ñu waxtaane anamu tey waaw anamu tey. yàlla yàlla xare ko àjjana yàlla ko yàlla yërëm. waaw bilaay baax gore. waaw yiw moo waral lii tey la arène bi tey. laay dëgg la kon nañu waxtaan làmb démb. pour xale yi delloo seen xel. xam ne làmb foo ak ree la. waaw. làmb foo ak ree la. foo ak ree la ndeysaan lamb ñu bokk wurtëg ñoo koy def bilaay dëgg la lamb famille la lamb famille la ñu yéenante jàmm da waxante lu baax waaw at aduna dafay jeex waaw bilaay dëgg la kontaan naa si yow bu baax a baax yow jàmm rek ngay am waaw ndax yow saa lu rafet ngay wax Père Modou Beye kenn dootu ko présenté ci lamb déedéet daam ñoo xam ne dañoo war di wax ci lamb waaw lamb lamb lamb defar la baaxoo dëgg Essa May moom mooy daw noonu Essa May tamit xale la bu mën a bëre. waaw. Essa ngi noonu. moo kan la moom la ak bul laal. combat bu neex a ngi nii nag ci biir géew bi. bul laal mooy kii ban ban la. bu bul moom la ñu jàkkaar lool. Essa May. dafa mel dafa mel ni de. ah. Essa Mbaye dafa mel ni Joola la de. Essa Mbaye gis nga moo la wan ginnaaw. waaw. at bi bisimilah na combat bi waaw combat combat combat bu nar a neex la bu gën a ah, gaaw. bu ci jugee ñu dem seetaani fils de Sadio. waaw d' accord. moom moo war a tuus. Essa Mbaye waaye ñaari mbër yaa ngi ci digg géew bi Essa Mbaye moom moo nekkee à droite. waaw Poulard moom moo nekkee à gauche. waaw moo takk lu weex li ci. moo takk lu weex li ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. dañuy xeex dañuy xeex de. ñoom ñaar dañoo nar a xeex. taxawaay bi taxawaay xeex la de waaw ñaari mbër lañu. waaw ñaa taxawaay bi rafet. xale yi ñoom ñooy bëre. envoyé na ko gauche. envoyé na ko gauche. waaw. esamaa yi. sànni na ko gauche. waaw. waaw. ñu ngi xeex. ñu ngi xeex jàppante ñu ngi xeex bu laal dóor na. jàppante nañu. jàppante nañu bamba. waaw lamb ju nii. waaw du ñu may dara. gis nga jàppante na nu ñoom ñaar boo ci gisee jël ba rafet bu mu la bett ndeysaan ndax ñaari xale yu koy bëre ñaari xale yu ndaw la yu jàppante nañu bu laal ba léegi mi ngi jàppanteeg mi ngi esamaay esamaay ngi dóor ci suuf esamaay ngi dóor ci suuf waaw mais bu laal bu laal ngu da jàpp ndeysaan bañ na ko bañ na taf na ko bañ na gis nga loolu xantaalu na ndeysaan bu laal bu laal bu laal ngi bëre bu laal mi ngi bëre mi ngi bëre na mi ngi bëre esamaay bu laal bu neex waaw ñu ngi bëre ñu ngi bëre xoolal combat bi ñu ngi bëre. ñoom ñaar ba léegi ba léegi ba ñu ngi jàppante. ñoom ñaar ñu ngi jàppante ku nekk yaa ngi wut mais dafa mel ni bu laal ni mu taxawee baax na waaw ngi doon ci suuf waaw mi ngi wut waaw mbër même dóor da jàpp gis nga jël na ko bëgg xaat jël ko daan na ko daan laal bu laal daan na ko bërekat la waaw bërekat la da koo xar képp oh, oh. waaw nee naa la boo ci gisee jël bu mu la bett non daraan la ndax ñaari xale yi dañoo mën a bëre dañoo mën a bëre même assaillement yi bii daal sax mbër la newoon naa du yàgg waaw parce que seen taxawaay waaw mu lay wan na combat bi dafay ndax bu laal dafa waaw daw jàpp ko. waaw certain. waaw xeex moom pour que virgule. mais ba mu def ko mais mais asaamaay sigi ba mu sigi moo ko rey. waaw moo ko rey voilà moo ñu ngi lay fay gannaaw bi gannaaw bi ñu sant yàlla julli jërë ngeen di sant suñuy ñaari waajur di waa Boune waa Fass xam nga waa Fouss waa Boune waa Fass waa école de l'Union Mansour Mbaye di sant waa Pambal nga ñu jógee di ñaanal sama rakk ñi caatu Pambal yàlla bu waa li jik di sant ñëpp gërëm ñëpp daal mooy loolu waaw kenn gis nga ne ginnaaw ma sant yàlla gis nañu sant sama ñaar waaj man la Rouge Bordeaux man maa bëri fii 3 combats 3 victoires journée Omar Saliou mais nag mais dama gaa yi jël ma bëri nag na gaa yi jël kon man nag Boy Notaire combat la Boy Notaire na ma jël ñu bëri ma duma ko waaw. daan nañ ci yéen. waaw yéen a ñoo gën a daan nañ ci yéen. waaw père nañu gaa yi jël ñu bëri quoi nañu gaa yi jël ñu bëri 3 combats la 3 victoires. nii kon bii daaw nii maa ko mujjee daan fii. sa Sadio le 24 juillet. tukkal mi taxaw ci ginnaaw fii de Sadio. nañu ko ay message ñu bëre te bàyyi dawante bi lamb ji dawante bi moo fi mel. nañu ko ay jël ñu bëre. Mass Bantamba dañoo ñu bëre. Mass Bantamba Mass Bantamba lamb la dañoo ñu bëre. sama doomu day la daan un ziga. dañoo maa moom ñu bëre. Ah, waaw waaw ñu bëre man ak moom. kontaan nañ ci yéen. noonu la demee mag. jërëjëf ñu dem ñu dem seetaani tous. nga daan ëllëg ñu daan la